ko wër ma leen di siyaar di leen di bëggee leen di wax seen doom seen rakk seen jarbaat seen dëkkandoo seen mbokk muy Sidy nekk xale bu ndaw di góorgóorlu di dëgg ay lamb ci 2021 bi mooy ñaareelu lambam muy teg nag mais teg na yeneen mbapat yoo xam ne ay ceeb lay teg. Sylla ak Cheikh Faye danaa seet suñu ndeyjoor Cheikh Faye suñu càmmooñ wala moo ñu xaw waaw VAR VAR VAR waaw léegi suma gaay mbabat bi tas na ñu ngi ak promoteur bi Sidi Gaynde wala Sidi production Sidi nuyu nañ la waaw fay nañ la naka mu si jàmm bu baax ay tan bu baax baax baax mais ñu gis ne tey ni mbabat bi ngeen si mbër yi jóge si dëkk si di organisation bi nañ lay ko assurer ba affaire yi jéggi dayoo nii neex xam nga animation bi ak yooyu noonu yëpp waaw euh, maanaam mbabal moom waajal nañ ko biñ ko rotee ba pare lañ ko di waajal di waajal ba yàlla def li muy def. Mhm. amul amuñ ci benn benn rëq-rëq quoi. Mhm. nag métti na quoi ñun yàgg nañ li tàmm ko quoi. Mhm. ñun mhm. ya, am na benen bu ñuy wax sax Dakar lañ koy bëgg tege quoi waaw instant bi ni appétit daal ñu ngi ci suñ kanam quoi yàlla baax na mais mbapat bi ni mu ala daw mel nii gars yi seetaan si malgré programme yu bëri si tabaski bi yow ban yëg-yëg nga am dama kontaan dama kontaan parce que bu jógee woon jógee ci ay saako ceeb ñëw ba tëgg mën a tëgg làmb loolu loolu loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax daal ñu ngi sant yàlla bu baax yow aussi nga nekk ndaw gis nañ ni ci ay saako ceeb nga commencé ni ko waxee ba tey yaa ngi tëgg ay mbapat di tëgg ay nag nekk ndaw si dëkk bi di góorgóorlu ban appel ngay lancé ñi nga xamante ñoo nekk nekk si dëkk yi pour ñu ñëw jàppale la affaire gën a jëm kanam nga bay tëgg ay combat wala tëgg ay lamb yoo xam ne ay millions ngay teg ban appel ngay lancé waaw ñëw jàppale rek parce que affaire yi moom wax dëgg franchement lamb moom mhm. ñaan képp ñëw teg ma loxo mhm. ma dem parce que xam naa ne lamb ji moom mhm. moom sax gënal sama liggéey bi man dama ko xas ba bëgg quoi waaw te bëgg naa tëgg ay affiche affiche affiche affiche bu ko yàlla defee ci programme yooyu lañ nekk quoi waaw waaw aja kon comme gars yi dañ lay xaar xam naa dañ lay seet si ñu waxtaan si loolu yëpp nga gën a yaatal ak gars yi amul rafet na <laughs>